donc euh, tey def nañ benn réunion bu njëkk ak ak comité électoral bi xam ni moom moom la ñu samp ci biir arrondissement bu yëmbal muy arrondissement bu bees te comité électoral boobu euh, code électoral moo santaane circonscription bu ne mu am benn am fa bu fekkee ci département bi la dina am benn bu fekkee ci arrondissement yi la dina am benn te rôle mooy waxtaanee lépp lu jëm ci processus électoral donc euh, actuellement ñi ngi jëm ci élection locale ñu jàpp ko le 23 janvier 2002 processus bi démarré na donc da doon yoon tey ñu dajaloo ak acteurs yi waxtaan ak ñoom présenté leen suñu bopp xàmmee leen ñoom tamit mën a dégager ensemble lu ñu war a mën a liggéeyee donc euh, am na point yu bare yu ñu soulever tey ci waxtaan bi bien que premier waxtaan la mais point am solo soulever wu na fi euh, mais li ci ëpp solo mooy daal commission yi commencé nañ leen te wax dëgg yàlla gisuñu fa yenn jafe-jafe yi mi ngi dox normalement euh, dëgg la nit ñi niñ fa war a demee pour le moment guñ ko bu baax euh, mais ya am nañ yaakaar ni balaa muy yàgg nit ñi dinañ dem inscrire ci commission yooyu wala ñu apporter ay modification ci seen euh, inscription électorale ñu ngi ciy lancé waale appel population yi jeunes yi képp koo xam ne daal war nga dem ci commission yi nga teel a jóg teel a dem bañ xaar ba fin bi ñu fay dem di fa dajaloo surtout que ñu ngi ci période pandémie euh, di yenn dajaloo yi mën na indil jafe-jafe ñenn ñi te loolu baaxul donc euh, benn jafe-jafe bi ñu xaw a signalé mooy wàllu certificat de résidence yi ci yenn commune nga xam ni am na ñoo xam ne am nañu ay jafe-jafe pour am ko loolu nag wax nañu euh, service su mairie bi taxawaay bi ñu ci war a am parce que ñu bañ a fàtte ni aussi mairie service public la donc usage service public yi bu ñu ñëwee soxla yenn document yi dañ leen ko war a yombal ci dëkku yoon lañ nekk dafa am lu yoon prévoir ci domaine boobu que nit ñi bu ñu soxlaa yenn actes yi dañ ci war a mën a jot donc ñu bañ a daal ut benn euh, gàllankoor ci côté boobu bu ñuy xa xañee population yi seen seen droit wax nañ ko ñi ngi ko waxal te am nañ yaakaar ni dinañ ci indi taxawaay bi ñu ci war a taxawaay li ci des nag ñun suñu rôle la en tant que autorité administrative en tant que administration mooy veiller à que citoyens yi ñu am seen droit service public yi ni ñu war a fonctionner ñu fonctionner noonu normalement te loolu incha allah dinañ ci taxaw bu baax a baax. voilà donc pour euh, primo votant yi pour le moment euh, récépissé mënul inscrire ci kii donc loolu mooy li nga xam ne moo am. Euh, boo yore récépissé wala même nga yore récépissé teg ci photo aussi mënoo benn pièce rek lañu ñu autorisé pour le moment boo xam ne mën nga ci inscrire muy la carte d'identité CEDEAO CEDEAO bi nag mooy bu mujj bi nekkul sax numérique bi mais bi nga xam ne mooy bu mujj bi boobu moom la ñu autorisé pour que ñu nangu ko ci commission yi mais récépissé moom kenn nangu ko euh, dëgg la am na ñoo xam ne dañuy wax ni amaguñu carte d'identité dañ doon xaar commission yi pour am carte d'identité ak nangam ak na mais damay fàttali que ni carte d'identité jotul ak commission yi dara carte d'identité moom citoyen bu ne da ko wuti avant ngay am 18 ans sax da ko mën nga ko am à plus forte raison boo demee ba am 18 ans jox soxlu ngay xaar benn commission pour wut ko mën nga dem ci commissariat yi wala ci yenn centre d'instruction yi nga wut fa sa carte nga téye bu commission amee révision am bu fekkee bëgg nga bokk ci liste électorale yi nga dem mais nit yi bu ñu xaarati wala dara naan damay xaar ba bi ki ma daw déedéet jotewuñu leneen la inscription yi sur les listes électorales leneen la voilà loolu daal amul ma voilà c'est ça donc daal ñu ngi leen di gën a ñaax ñu def ko surtout léegi ñu teel a jug dem bindu ji balaa ñuy bàyyi ba fin ba ñuy def ay riche ci commission yi dëgg la am nañ yéene rendre commission yi itinérante mooy lan jëlee leen xaw leen a gën a jegeleeg population bi am nañ ci yéene waaye daal ku ko ci mën nga jug dee maintenant nga dem commission yi ñu ngi ci mairie yi dinañ fa nekk de 8h ba 18h tous les jours benn fan rek lañu am bu ñuy noppalu mais ku am jot ci bis daal nga dem teel a inscrire bañ a xaar ba dernier moment bi repris, on a tenu une réunion avec le comité électoral de l'arrondissement de, de Yembel. Donc, euh, le comité électoral est une instance prévue par le code électoral qui doit être euh, implantée dans chaque circonscription, que ce soit au niveau départemental, arrondissement. Donc, on vient d'être euh, nommé sous-préfet de l'arrondissement de Yembel. On a tenu à mettre immédiatement en place cette, euh, ce comité parce qu'on va vers les élections locales et le processus a déjà démarré. Donc aujourd'hui, on, a fait une prise de contact avec tous les membres de ce comité-là pour dégager ensemble les axes sur lesquels nous devons travailler, mais aussi échanger sur euh, la période de révision qui a démarré depuis ce samedi 31 euh, juillet. Dans l'ensemble, quand même, il faut se réjouir que les membres du, du comité électoral se sont réjouis actuellement du bon déroulement des opérations au niveau des euh, de différentes commissions administratives, l'une installée à Yembol Nord, l'autre à Yembol Sud. Hmm. Voilà. Donc, euh, ils n'ont signalé aucun problème majeur. La seule difficulté qu'on nous a signalée, c'est les problèmes de résidence hmm, dans une des commissions. Euh, mais eh, on a tenu quand même à rappeler aux uns et aux autres que c'est un acte administratif que les citoyens eh, demandent auprès des mairies. Donc, euh, il ne serait pas responsable que de plein gré que ceux qui doivent délivrer ça refusent de le faire à ces citoyens-là. Donc, euh, on est dans un état de droit, on est régi par des textes, une législation et une réglementation. Il va falloir que les services publics qui sont là se conforment rigoureusement à cette réglementation-là. Et cette réglementation-là refuse à ce qu'on donne des prétextes pour ne pas donner certains actes administratifs à des citoyens demandeurs. Non, pour le moment, le récépissé n'est pas une pièce qu'on peut admettre pour l'inscription. Euh, donc euh, là aussi, il faut qu'on précise, une chose. Euh, la pièce d'identité est une obligation pour tout citoyen. Même si on n'a pas 18 ans, on peut chercher sa pièce d'identité. À plus forte raison car a déjà 18 ans. On peut aller au niveau des commissariats, ou bien dans d'autres centres, dans d'autres centres d'instruction, trouver la pièce d'identité nationale. Donc normalement, ces gens qui se plaignent et qui disent qu'ils n'ont pas la pièce d'identité devraient l'avoir en premier lieu et attendre la révision pour pouvoir faire leur, révision, euh, leur, euh, leur inscription sur les listes électorales. Euh, néanmoins, nous avons conseillé à ces gens-là ou bien aux responsables qui ont soulevé ces points-là de demander à ces jeunes

Voilà, donc ça, il bien de, de, préciser cela. Les commissions sont, sont, sont, sont ouvertes, elles ont été instituées et les jours, sauf un jour de repos de 8h à Donc toute personne, tout citoyen qui désire s'inscrire ou bien apporter des changements sur son euh, inscription électorale peut au niveau de ces commissions-là. Ils sont attendre la dernière minute pour créer un rush dans ces commissions-là. On est dans un, contexte de pandémie. Ce sera exposer des gens inutilement. Donc je, lance un appel à travers votre média. Nous comptons aussi sur vous en tant que presse. Je l'ai aussi demandé aux acteurs politiques pour sensibiliser les jeunes et toutes les autres personnes qui, ont, qui désirent faire des opérations au niveau de ces commissions de se rendre là-bas dès maintenant. Les gens sont disponibles et de faire leurs opérations. Ne pas la dernière minute Comme on a l'habitude de le dire, le Sénégalais aime attendre la dernière minute. Ils n'ont qu'à se rendre au niveau de ces commissions-là dès à présent, procéder à leur inscription ou bien à leur modification. Et là, je pense que ce sera dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde.